ci euh, yoon euh, bokk na ci tamit euh, ci biir xibaaru digg bëccëg gi gannaaw bi nga xamante ni rek ñoom juge yi ñoom jamono ji ña ngay dajeek ñi nga xam daal ñoom ñooy ay avocat Ousmane Sonko foofu ca cour suprême den ci dikkaat bokk na ci tamit li nga xamante ko moo jëm ci wàllu askan bi ñoom it addu nañu gannaaw bi nga xamante ni tere nañu mboolem ay moto ñu daal di daw fii ci biir réew mi bokk na ci tamit ci taxaw seetlu Al amin Senghor waaye tamit askan bi yéey nañu moo soxal wàllub mbirub Ousmane Sonko ñoom askan bii ndeen ci yëy yàbbi euh, ci euh, reportage Ndeye Fatou Diop mbokk yeneen i xibaar tàggat yaram li ci yéen kaay lañ koy ndar keppe ak El Hadj Abdoulaye Naar nees kiis ñu soobu ci yaatal gi mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah ñi leen dalal jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi ci leeral TV nañu ko junjee woon ñu daal di soobu ci yaatal gi ak cour de justice maanaam bërëbu àttekaay bu kawe bi nekk foofu ca CEDEAO ñoom daal di nañuy dëggal lii di doxalinu gouvernement bu Sénégal li soxal euh, kile di Ousmane Sonko ñoom cour de justice bu euh, CEDEAO daal di nañuy euh, rek ànd ak ak it doxalinu gouvernement bu Sénégal lu jëm ci li nga xam rek moo soxal wàllu doxalin bi nga xam ne wala boog ay daan ñu tegoon ci kaw kii di Ousmane euh, Sonko euh, kon ñoom waa CEDEAO mbooleem rek ay kalaame yoo xam ne dafa gaa bàyyeekoo woon ci ay avocat wu Ousmane Sonko daal nañu koy euh, neenal waaye lu jëm ci li nga xam rek moo soxal wàllub lii di radiation Ousmane Sonko ñoom duñ ci àddu ndax it mi ngi woon ci yoon. bokk na ci euh, juge bi nga xamante ni rek euh, moom moo doon àtte lu ni mel nee nañ daal euh, lii di gouvernement bu Sénégal amuñu lenn loo xam rek dañ ko salfaañe lu jëm ci wàllub ak ak yelleef bokk na ci ate goo xamante ni dañ ko daal di teg ci yoon kon cour de justice boobu nekk ca CEDEAO daan nañuy dàq mbooleem ay kalaame avocat wu Ousmane Sonko. waaye tamit lu jëm ci wàllu diigalu parti euh, Pastef bi nga xam ne Ousmane Sonko moo ko jiital euh, bokk na ci tamit lu jëm ci euh, wàllu googu kon li nga xam daal moom mooy cour de CEDEAO ñoom dañ ne lu ni mel duñ ci daal di yëy yàbbi kon ñu daal di wax rek ci li nga xam ni moo soxal wàllu pa tey jile ñu doon am tiitaange euh, lu jëm ci wàllub àtte gi wala bokk euh, ñii nga xam ne moom mooy ay avocat Ousmane Sonko nekk foofu ci cour suprême ak yi tamit li nga xam rek moom mooy délibéré bu waa CEDEAO waroon amal ci wàll googu euh, préfet bu Ndakaaru tey jëlee ci àjjuma ji dafa tere mbooleem ay moto wala bokk ay vélo ñu daal di daw fii ba maanaam minuit ci guddi. Euh, kon euh, xibaar boobu démb lañ ko daal di euh, fësal lu ni mel rek lu jëm ci wàllu wàllub kaaraange moom Al Amine Senghor daal ne àddu ci li nga xam ne moom mooy pa préfet bu Ndakaaru daw ci Ndakaaru tey jii ci juma gi li ko dalee six heures jàpp minuit ci guddi loole préfet bu Dakar bu yees bile moo del boobu lépp ndogal daal di koy dàq tere ko ci arjuma tey jile loolu mu ngi koy xamal ci ab bataaxal boo xam ne bind na ko fësal ko ni ki démb ci alxamis gi lay gannaaw ba ñu xamle wi ay manifester yoo xamante ni bëgg nañ ko def ni tey jii ci àjjuma gi mel di rek ne préfet bu yees bi lay di shérif Mouhamadou Blondin Ndiaye dafa topp tànk ki nga xamante ne moom la wuutu di Mortalla Tine bu daal am ay yëngu-yëngu mu daal di tere li nga xamante ne moom mooy moto yi ñu daal di daw ci biir Ndakaaru lépp mu teg ko ci fagandiku ci li nga xamante ni bind na ko ci bataaxal bi ba tey ci bataaxal bi di xamle ne ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci larme bi wala ñi nga xamante ni ñoom ñoo yëngu ci wàllum wér yaram ñoom mën nañu jëfandikoo seen i moto waaye keneen koo xamante ni bëgg naa jëfandikoo moto am tey jile ci àjjuma gi faw nga am dérogation ñi nga xamante ni tënkuwuñu ci bile tere daa ñu jël dogal yi nga xamante ne moom moo war lépp tënku ko ci wàllum yoon préfet bu ndakaaru woona gendarmerie ak waa police ñoom ñëpp ñu def seen kéem kattan ba ñëpp mën a tënku jaajëf Alamine Senghor ci yooyu lee leeral waaye tamit ca cour suprême ñu ngay càmbar jamono ji ñuy àddu ak yéen lu jëm ci li nga xamante rek moom mooy recours état gannaaw bi nga xam ni juge bu Ziguinchor moom mi le Sabassy euh, Faye euh, dafa waxoon rek ñu dugalaat kii di Ousmane Sonko ci liste électorale yi waaye tamit mu nekk bés boo xam ne askan bi ñu ci bëri génn ñu seen kër ndax euh, am njàkkare ak i tamit tiitaange bañ rek mbir yi daal di demee neneen ba ñu daal dal seen kaw rawatina ñi nga xam daal moom mooy commerçant yi maanaam njaay meeg jënd bi fi mu nekk nii daa lompoñ rawatina chauffeur yi euh, tata yi euh, ñoom itamit jamono ji mënuñoo ñoo gis euh, client seen liggéey dafa daal di gàllagoose mu dipp reportage yu Ndeye Fatou Diop ak Yérim Wade ci mbedd Ndakaaru yi tey jii di jour ouvrable méngoog aljuma fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre yamoog procès Ousmane Sonko bi nga xamante ni si la ñuy sàkku ngir ñu boolewaat ko ci liste électorale yi ba tax na wéetaay la ñu nemmeeku ci mbeddum ndakaaru yi ñu gis ni itam saa yu xew-xew yu mel ni amee jaaykat yu bëri duñu lal benn benn ya fa nekk sax naam li ñu xamle mooy ñu ngi si seeni place waaye gis ñu client waaw loolu moom dëgg la moom ndax bu dul loolu sax boo lalee sax doo gis client yi client yi ñooy njëkk a xalaat dute duñ génn duñ génn ndax wóorul dëkk bi na tàkk moo tax yaakaar yi daanañuy négle temps ba résultat yi wàcc bu jaam amee ñu laal bu jaam amul nag kenn ku ne xool loo def ñiy wàcc teere wàcc ñu tëdd seen kër tëdd loolu daal mooy problème jamono bi moom moo tax jaaykat yi duñu koo génn heure bi bu weesoo jaaykat yi itam naam dem dikk yi dawuñu mboto yi itam dawuñu waaye bu ñu sukkandikoo ci kàddu chauffeur yi ak receveur tata yi tey si suba gi seen liggéey doxul ndax gisuñu client yu bëri doy na waar daal ndax instant yi dëkk baa ngi ne tekk si suba ba tey gisuñu kenn suñu liggéey doxul te xam nga tamit du nga war a am sa activité war koo doxi ñu lay téye si yoo xamante ni mooy loolu imaginer borom moto yi ñu ngi leen téye ak ñeneen ak yeneen mooy loolu daal dëkk bi instant yi jaxasoo na mooy loolu saa yu amee genre situation yi bu amee liggéey bi du dox duñu gis client duñu gis mooy loolu daal wax dëgg yàlla te xam nga tamit du situation la ñu war di dox. comme d'habitude ni mu demee ñu ngi oto yaa ngi dem seen rotation normale dëkk bi nag fii wéet na parce que moo fi débat mais xanaa di xaar rek ñoom niñ ko jàngatee comme niñ ko ñëpp di xaaree lu ñëw rek ñu xam ne noonu la demee tamit. mu nekk ay jafe-jafe yoo xamante ni yàgg nañ di ko nemmeeku saa yu procès leader ex Pastef bii di Ousmane ma nga noonu euh, dëkk bi na mu wéetee ndax càpp euh, njàkkare waaye tamit ci wàll politique la ñuy des ni ba tey ak mouvement wala bokk mbootaay ay euh, jàngalekat yi faree ci parti pur daal nañu génne benn bataaxal di wane seen ñàkk ànd la ñu tëj ci yenn daara yu kawe yi maanaam université yi ci weeru juin bi ñu génn ba tey jile ñoom dañu jàpp ne la ñu caxat-caxatee woon yenn ci ay université warul tax ñu daal di tëj université yi ba njàng mi du tàmbali ñoom la ñu bëgg rek mooy na mu gën a gaawee nañ tàmbaliwaat wàllaat njàngale mi euh, foofu ca daara yu kaw yi mu dip euh, université yi euh, te li dafa nekk loo xamante ni lu war la dañ ciy teelu ay farañ fàcce Omar Ndiaye enseignants yi nekk ci parti bi di Pierre di ñaawlu tëj bi nga xam te ni tëj nañ ko université Cheikh Anta Diop bu Dakar depuis juin ñoom ñooñu jàpp nañ sax yàq yi nga xam te ni yàq nañ ko université ca campus pédagogique ak campus social warul tax ñu tëj bi lépp université li jëm na ci njàngab à distance yi ñoom nee jàpp nañ loolee nekkul loo xam te ne nii li mucc ayib la ndax nag mën naa jaxase li nga xam te ne nii mooy calendrier académique bi ak calendrier électoral bi te dina am ay njeexintal ci rek naw gi nga xamante ni nawoon nañ ko bi lépp université li jëm na ci kaawu université Cheikh Anta nañ li nga xamante ne nii rek nawee nañ ko ko ci diwaan Afrique foon mooy qualité jàng bi nga xamante ni doon na ko ak li nga xamante ne nii mooy nit ñu am xam yi nga xamante ni doon nañu fa génne loolee nag dara waralu ko lu leen respecté li nga xamante ni mooy calendrier académique bi ci loolee ñoom nag li ñuy sàkku jamono ji mooy autorité étatique yi ak ñi nga ñoo ŋànk bi lépp université ñu fexee rek ba université bi daal ibiwaat ndax ndaw yi mën a ñu daal di wax lu jëm ci wàllub wér-gu-yaram lu toll si ñetti téeméer ci ay gone daal dinañ leen di faj opéré leen ci yenn jàngoro yoo xamante ni moom la amee ñu mu soxal wàllub ORL ak itamit ophtalmologie lu jëm ci wàllub bët ak it yeneen yi ay jàngoro lu ni mel ma nga amee foofu lay ci hôpital bu jam ñaajo ci juróom weer yëpp ñu génn kon ñu wax gis ne rek lu toll si juróom benn camp nañu ko tuddee ñoom gone yi dañ leen di faj daal leen di opéré te du ñu fay dara Euh, lu jëm ci li nga xam ni mooy wàll boobu euh, ci mbébétu centre d'accueil euh, ñi nga xamante seen loxo jotul seen ginnaaw muy ay orphelin yi nekk foofu lay ca Diass lëkkaloog ak ONG wala bokk mbootaay direct aide société ak ministère wàllu wér gu action sociale waaye tamit li nga xam ne moo jëm ci wàllu googu bokk na ci jafe yi nga xamante ni ñoom hôpital boobu dañ koy amee di jàppale ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw moom directrice hôpital bu Diamniadio daal ni ci dikk ci nu mu gën yaatoo ci reportage yu Biram Xarina centre d'accueil des orphelins bu Diass ci lëkkaloom ak ONG Direct Aid Society ak ministère bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ak action sociale daal nay ndar képp camp bi nga xamante ne doon nañ ci amal chirurgie pédiatrie buñ dul fay dara ci hôpital pour enfants bu Diamniadio ci alxamis gi ci boobu leen ndaje njiitaluk bile bërëbu fajukaay jot na xamle jafe-jafe yi nga xamante ne tout tànk yi ak seen i wayjur ñu ngi koy jànkuwanteel ndax ñu si bari seen loxo jot seen gannaaw. ci li nga xamante ni ñu ngi ko defal hôpitalu xale yi ci Diamniadio defal ko euh, parent yi nga xamante ni itam dañuy ñëw fii di indi seen ay doom di wax ni waa ONG leen buñ ko fi nañ dañuy ñaan yàlla partenariat bañ fi yem parce que comme ñu koy waxee rek besoin bi ba léegi mi ngi fi am na xale yoo xamante ni ba léegi ñu ngi ñëw hôpital di faju si te seen way jur yi seen loxo jotu seen ginnaaw njiitalu ONG Direct Aid Society mu ngay rafetlu liggéey bu am solo bi ñu def ba tax tu tànk yu bëri jotaat seen wér-gi-yaram Abdelatif Jabralla yokku ci itam ne daañu def ay jéego bu ko defee ñi nga xamante ne seen cas dafa jéggi dayoo ñu jëm koo def seen yitte. le plus important c'est de voir les enfants là qui sont guéris. li ëpp solo jamono ji mooy gis nañu tuut tànk yi jotaal seen wérgu yaram am na nag ay tuut tànk yu bari yoo xamante ne seen cas jafe nañu daal di koy nettali wante li leer ba leer mooy ci intervention yi nga xamante ne ONG bi hôpital bi ak ñi si dugal seen loxo def nañu ko ba ñii jotaat seen dund ñun dañu koy rafetlu dina metti lool dem ba ci benn million jàpp ñaari million sax dinañu def ay jéego ngir beneen yoon ñu xool nu ñuy def ak ñoom. on va le ci atub ren ji centre d'accueil des orphelins bu Diass li mu amal mooy juróom benn camp chirurgie ci diiru ko juróom benn weer daal di ciy toppatoo lu jege ñetti téeméeri tuut tànk jaarale ko ci ay intervention chirurgicale ci wàllug ORL chirurgie ak of Birame Khary ndaw bu ñu jógee lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ñu wax lu jëm ci wàllu euh, napp gi ak foofile ca Kafountine euh, kon lu toll rek si ñetti millions ci euh, tonne jën lay daal di génne saa su nekk rek lu jëm ci wàllu li ñu tuddee basse saison kon ñu wax ne rek foofile ca Abéné ñu gis ne sax lii di napp gi ma ngi fay dox bu baax a baax moo tax ba rek teg nañ fa ab benn projet maanaam laay lu jëm ci wàllu napp gi bokk na ci ndimbalu projet AMP. mangrove euh, lu jëm ci wàll googu rek lañ ciy teelu ci nu mu gën a yaatoo Omar Ndiaye Babacar Thial ñoo ñu demoon foofu euh, ca diwaanu Mbour ñoo demoon ca Kafountine li soxal wàllu pa napp googu lay ngir gën a mën a sàmm seen i ressources tax na ci aire marine protégée bu Abomey comité de gestion bi nga xam te ne teg nañ ko fa ñoom jàpp nañ daal li ñu war a njëkk a def mooy wàllu sensibilisation. bu si bu si bu toppee mooy mooy sensibilisation dañuy wéy si sensibilisation. Mm-hmm. parce ba léegi. sensibilisation moom ñu ko arrêté parce que comme euh, ci mbooloo lañ nekk mbooloo boo xam ne moom mbooloo yëngu la parce que pêcheurs yi yemuñu fenn dañuy bouger di ñëw am ñëw ñi ñëw tey ñi ñëw ëllëg ainsi de suite kon say say say say sensibilisation war na nekk sensibilisation continue te loolu noonu la ñuy wooyee gannaaw sensibilisation bi tamit li nga xam ne ay mesures jël nañ ko fa loolee nag ki ko piloté mooy CLPA bu Kafountine. Euh, ci conservation bi euh, moom laa waxoon fii am na les comités de euh, bi CLPA CLPA moo koy def. yeneen mesures sax am na ak njeexantal bu am solo ci li te mooy askan bi mooy aussi li nga xam te ni mooy gestion ressources yi bu ñu sukkandikoo ci conservateur bi. waaw xam nga pour la plupart des des AMP. dafa di sit bi nga xamante ni kii dafa am koom-koom donc moo li nga xamante ni kii day xëcc population yu bëri parce que ressource am na fi ba pare euh, euh, ñun ñi bu ñu ñëwee xam nañ ne dinañ ci am dara. sax li nga xamante ni mooy ñàkk bu ressource bi nemmeeku nañ ko ci diwaanu Sénégal waaye nag ci diwaanu quai de pêche di moom boo fa ñëwee doo gis lu ne mel li ko waral nag mooy liggéey bi nga xam xamante ni MP mangrove daal na ko fay def ci ndimbal. jaajëf Omar Ndiaye Babacar Thial ci ay leeral lu jëm ci wàllu wàllub euh, napp googu ak euh, projet bi nga xamante ni moom lañ ci waa daal di euh, teg daal di nañu buur pàcc bu njëkk ci xibaaru digg bëccëg gi ñu song ñaareelu pàcc gi ba ca njëkk muy xibaaru tàggat yaram tàggat yaram gi dañuy tàmbalee ak foofu euh, ca diwaanu Ndar Géej li soxal directeur général bu office des lacs ak cours d'eau di OLAC moom mi lee Alioune Badara Diop daal dinañ euh, jébbal démb ci alxames bi ñu nekk foofu euh, ca diwaan Ndar Géej cheku chèque maanaam koppar yoo xam toll na si fukki million président club ba fa nekk muy Linguère de Saint-Louis ki xam moo ko jiitee moom Amara Traoré moo daal di jot lu ni mel kon li nga xam ne doon nañ ko amal mu dip cérémonie lëkkaloo euh, partenariat euh, diggante office de la cour d'eau ak Linguère bu euh, Saint-Louis bokk na ci li nga xam rek moo jëm ci wàllub ñoom joueurs yi ñu mën a amal seen i maanaam daal ay déplacement ci anam na mu gënee Aline Badara Diop directeur général bu OLAC ak Amara Traoré président Linguère bu Saint-Louis ñoom dikkaat nañu ci solo boobu la lëkkaloo ñu amal ñoom ñu ngi wax ci micro El Hadj ak Adama Sall ñu ñu toogal foofu la ci diwaan géey Guèye. tey dajaloo waat pour signer convention entre Linguère ak office des lacs et Côtes d'eau euh, loolu nag mooy ñeenteelu at bi di àndee donc ren suñ ko defee mu juróome loolu nag suñ ko defee euh, d'abord ñu si ñu répondre politique gu président Macky Sall bi nu sant fépp fu nu nekk ñuy jàppale ndaw yi sur le plan si éducation mais sur le plan aussi du sport et aussi sur le plan de la culture. dimbali moom du doy parce que ku ne xam nga football dafa dafa dépense bi bëri aujourd'hui euh, ñu ngi dem ay budget de cent cinquante millions ça fait six ans mooy sama sixième année ñu ngi jéem chaque année dañu am déficit donc à la à day metti donc moo tax may woo ndar-ndar yëpp di woo tous les autres directeurs ñëpp ñu def li nga xam ne Alioune def na ko comme ça ñu am Linguère euh, budget boo xam ni nañu mën a concurrencer suñu yeneen morom ma nga noonu mu nekkoon Amara Traoré président Linguère bu Saint-Louis doon àddu ci lëkkaloo boobile ñu daal di wax ci équipe nationale bu Sénégal ñoom ñu ngi waajal seen bopp ci match bi ñu war a seek ak Soudan du Sud ëllëg samedi ci stade euh, Diamniadio euh, kon euh, démb ci tàggatu bi ñu doon amal ñetti joueur bokkuñu ci ku ci mel ni ki Pape Matar Sarr Pathé Ciss ak Boulaye ja ñoom bokkuñu ci entraînement boobile ñuy wax ne Pape Matar Sarr bu Tottenham moom ma nga woon rek ca wetu terrain ba daal Abdoulaye Diaw ñoom i tamit euh, kenn gisu leen ci entraînement bi équipe nationale bu euh, Soudan ñoom agsi nañu sax euh, démb war a rek joué fii ñaari match yoo xam dañ koy jogante éliminatoire 2026 muy coupe du monde googile ñuy wax ne rek li nga xam daal moom mooy moom Sadio Mané dina football téeméeri matcham suba seen diggante ak Soudan du Sud li nga xam rek moo soxal wàllu ñi nga xam ni moom mooy adversaire équipe nationale bu Sénégal ci coupe d'Afrique bi ñuy dëgmal ñoom ñi le waa Gambie dañu commencé seen éliminatoire coupe du monde euh, démb euh, foofu ca Bujumbura euh, ñi nga xam ñoom ñooy waa Burundi moo leen gagné ñetti bal ci ñaar ñoom waa Gambie éliminatoire coupe du monde gi ñoom Togo foofu ca Bénina ñoom dañu daal di def match nul ñoom ak waa Soudan ku nekk benn bal kon ñoom Sénégal rek war a def kéem kàttan daal di gagné seen diggante ak Soudan du Sud ndax it ñii di waa République démocratique bu Congo ñoom ñoo daan waa Mauritanie euh, ñaari bal ci euh, dara yeneen ci ay euh, résultat ak programme tey jile ñu wax ne démb Botswana Mozambique moo ko daan ñetti bal ci ñaar Gambie moom Burundi moo ko gagné ñetti bal ci ñaar Algérie moom moo daan Somalie ñetti bal ci benn Égypte Djibouti Égypte moo gagné juróom benn bal ci dara gamo daan Kenya ñaari bal ci benn Nigéria ak Lesotho ku nekk benn bal nga am Soudan ak Togo ku nekk benn bal Cap-Vert Angola kenn dugalul dara euh, tey ci àjjuma ji Uganda ak euh, Guinée euh, Madagascar ak Ghana lay doon Burkina Faso Guinée bisawo Cameroun Île Maurice Côte d'Ivoire Seychelles Mali ak càdd yeneen ndaje denc dikkaat ci nu mu gën a yaatoo ñu daal di wax euh, coupe du monde ñu weesuwul fukki at ak juróom-ñaar gayndey Sénégal tey jile dañu am jël seen diggante ak Japon Japon daan leen ñaari bal ci dara ñoom gaynde Sénégal qualifié nañu sax huitième de finale ñu war a dajeek euh, France boog euh, wala Amérique ci wàllu huitième de finale àllarba lay doon. ñu daal di wax ci football suñu biir réew euh, dañuy tàmbali ñeenteelu bëccëg euh, Ligue 1 bu Sénégal ëllëg ci euh, samdi bi ak programme bi na muy tëddee suba ci samedi bi ci stade Amadou Barry GFC ak Tëngéej FC ñeenti waxtu bu tegalee fukki simili ak juróom ci stade Alassane Djigo Izo mooy dajeek ak jamono bu Fatick ci stade Lat Dior Sonacos mooy dajeek Génération Foot yeneen match yi dimanche la ñu koy wéyal incha allah rabbi ñu wax ci wàllu euh, navétane ak euh, programme quart de finale bu euh, Guédiawaye tey kon ñu wax ne rek match bi nga xam moo war a dox diggante fii mi ca ak ñii di waa Golf Sud muy match bu mag fii mi Golf Sud ca stade Amadou Barry tey jële bu juróomi waxtu jotee lay doon. 32e de finale euh, phase euh, départementale ODCAV bu Mbour euh, tey ci programme bi kii di ASC Jàppo zone 3 ne dajeeka ak Insfot bu zone 14B Euh, Coose ouest bu zone 3 mooy dajeek ak Yaakaar zone 9 étoile zone 3 moom mooy dajeek Paki zone 14 B ñu dal di jeexale ak kile di doomu Sénégal Moussa Konaté moom daal dinay signé euh, club bu euh, Sadio Mané bi nga xam ne jënd na ko mu nekk foofu la ca France di Bourges Foot 18 comme ni ñu leen ko waxee wan moom mi la di Moussa Konaté daal nay signe démb ak club bi nga xamante ni Sadio Mané moo ko daal di jënd di Bourges Foot 18 mbokk mi ngi noonu loolu la woon la gënoon a fës ci xibaar woo tàggat yaram ñu daal di jàll ci pàcc gu mu gi li gën a fës ci yéen kaay tey yem ak àjjuma fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre Abdoulaye Naar moo ñu ko yëral. mbokke salaamaaleykum ajjumay tey ji yem ak fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre doon na ajjuma ju a diis li ko waral moo di la ñu ko wékk a diis ñaari atte yu mag yu ñu war a amal ci ñaari ëttu attekaay yu mag dox ci diggante ñaar yu mag di kenn ki ñu gën a ràññee jamono ji di Ousmane Sonko ak nguuru ñu dooree ko ci cour suprême ak atte ban fa war a amal tey jile daanaka yéenekaay yëpp moom la xëy def ci seen xët wu njëkk cour suprême war a saytu état dugaloon na ko mu ni nañu xaar ba cour suprême joxeb dogalam dogalub cour suprême tey jii la koy xam ci àjjuma àjjuma ju ji kenn la xelam dalul li ko waral moo di kenn xamakut luy xew tey ci àjjuma ji réew mi quotidien naan ma ak lu mën a xew na ñëpp xam ne Ousmane Sonko dellu na woo ndaw ñi ngir ñu gën taxaw dëkk ci bañ résistance dëgg la Ousmane Sonko dellu di woote vox populi naan ma moo yey ndax Ousmane Sonko jamono ji na ñëpp xam ne mi dëkkmal leen antenne kaay bi dañoo xamal ni ñuy xaare tey ci àjjuma ji dogalu cour suprême noonu itam lañ koy xaare ci cour justice de la CEDEAO jëm ci mbirum dugalaat Ousmane Sonko ci liste électorale ba tey yéen kaay bi dañoo xamal ni Ousmane Sonko fa mu nekk ca kaso ba ma ngay wax askanu Sénégal gépp naan ma ngay wéy ci bañ te noonu itam lay woo ci askanu Sénégal gépp ñu dëkk ci bañ bañ ak nooteel ñeneen ñi bañu nooteel ñi ngi ci biir yéen déshabillé jamono ji ci diwaanu Ndakaaru tey ci àjjuma ji foo curne dajeeku takk der ñu taxaw ak seeni jumtukaay fas yéene jàmmaarloo képp ku noppi ngir manifester ñuy woote manifestation yi di kuréel gi lëkkale ñenn ci kujje gi di yeewi askan wi naka noonu itam kuréel gu yees gi ñuy wax lakos ñooy sàkku ci ndaw ñu ñu génn ci mbedd mi sàkku ñu génnee Ousmane Sonko naka noonu itam bàyyi ko mu bokk ci élection présidentielle 2024 bi mooy xam ne biir bi di xam ne ni mbir mi daal te dëgg-dëgg du mbirum Ousmane Sonko kott wala ay kuréel ak yu koy nuru képp koo xam ne réewum Sénégal soxol na la mbir mi sa mbir la Habib Sy naan ko mbir mi képp ku mu soxol te nga bëgg caa am dam lenn rek moo la ko mën a may mujj résistance Déthié Fall naan ko askanu Sénégal gépp ñoo war génn ci bisub tey bi jël bis bi def ko seen bisub bopp bu nu ko defee rek génn bépp borom moto bu génnee moto xañ ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre ba alxamis fanweeri fan ci weeru novembre ba tey itam tey ci àjjuma ji amul benn oto Dakar dem dikk boo xam dina daw ba ci Sénégal dem dikk express AIBD naka noonu itam urbain yi Le Quotidien naan Ousmane Sonko koy fii mu ne mi ngi toog di xaar Cour suprême ngir xam ana ban dogal jël jëm ci moom ndax dana bokk ca élection présidentielle 2024 ñu dëgmal waaw wala déet laas naan ko ca dëgg-dëgg daal tey ji la a am lu leer ci ëllëgu politique gu Ousmane Sonko bu ci Cour benn e kon ñàkkul ni dafa bañ a ñàkk ak toggoo maanaam ñu dàq ko fa muy liggéey ana ku bëgg a xam yéen attekat ñoo war a atte mbiri Ousmane Sonko tey ji ca Cour suprême yëlal wu njëkk source a yéenekaay mu lamboo ko njiit la Ali Sidé Ba mu di ñu xamal ni moom mi miin Cour suprême la naka nooy tam ko xam ay dossier politique la comme yu mel nii naka nooy tam dana ca bokk attekat yi fas yéene teewe atte bi ci bisub tey bi ku ci mel ni Abdoulaye Ndiaye Fatou Faye Diallo Ba tey tawub milliards yi sa wéetagul ki ñu ko xamal li turbine président Macky Sall tournée économique bi muy amal fu mu dem digg fa milliards yu dul jeex yéen kaay bi dañoo xamal ne ci jur bu gàtt xaar njiitum réew mi président Macky digg na lu toll ci junni ak juróom-ñeent téeméer ak fanweer ak ñaar ci ay milliards ba tax yéen bi di laaj naan président Macky baa du film ne daan nekk luxuskat boo xam ne day wàcce ay milliards rek mu mel milliards ca yi la milliards xanaa nag lu waaye umu umu nag war cee mën a téye benn mbokk yi yàlla na jaajëfal nañ la El Hadj Abdoulaye Naar ñu koy jaajëfal bu baax a baax moo njëroon li gën a fas ci kaay tey di jaajëfal mboolem ñu nekkoon ci régie bi mu di technicien yi El Hadj Makhtar ak i tamit euh, mboolem ñu fa toogoon ñu leen jaajëfal bu baax a baax mbokk yéen i tamit doon teelu ñu leen jaajëfal xibaar yi euh, yemb ci jàppandalub euh, Cheikh Diop lu jëm ci wàllu réalisation bi mucc ak mucc la ñu yendu ak jàmm